Eh, Mara balaa may ñëw ci addee ji damay ñëw ci jëf ji Olof Njaay dafa am baat bu am solo bu mu wax dafa ne kuy dund nekk ci barab te tekk woo fa dara boo fa dee doo fa wàññi dara Mara ma la yëgal ni daaw ci heure bii fekkuma ci waal yi am na ci geneen kër gu ma fekkoon am na ci yeneen i mbir yu ma fekkoon teraanga ji dem kër waal yi demoon na ci ñoom daa dégg ah déedéet ci télé laay wax ci télé laay wax àddunaa may seetaan dama ne. tabaski daaw ci heure bii L200 yëpp na juróomi xar boole ko juróomi saako soble juróomi saako pombiteer yóbbu ko ca fa ma ne woon. mais lu tax amul parce que koo koy waali benn kenn du waali ku dul waali ñaareel ba bii dafa gën a garaaw mooy nag kii pël plus pël mooy ku yokkul yaa wàññi daaw ki sama doole. juróomi xar la yemoon ak juróomi saak sobe juróomi saak pombiteer ma sante ko yàlla ndax am nañu ko amul ren sama doole yegg na ci cinquante xar waaye nag kenn du mën lépp def lépp may sant yàlla bu baax ci yokk gi ma yokk diggante daaw ak ren ma yëg ko sama xol ndax li ma li ma li ma li ma mayee ci fondation bi ci ay xar ëpp na 67 xar te les vidéos sont là les preuves sont là yi dem ci prison yeeg hôpitaux yeeg daara alxuraan yi ak yi samay nit ñëw jël si ci fondation bi ki bi kenn xamul nu mu toll te lu ñu mayee rek liggéey ñu ko may ñu ko triyandewuñu ko fenuñu ko rambaajuñu ko dañ koo ñàkk liggéey ko mu lew ñu doom ñu dajale ko denc ko ba mu ñëw ñu jël ko def ko addee jébbal ko jaam yàlla yi. benn politique aussi nekkul déedéet amul politique man ministre joxuma DG joxuma président joxuma kenn joxuma man sama joma ma jox. lu ma am sama joma ma ko may ak sama ñàkk waaye da wax lu am solo muy teraanga ji jëf ji ma tuddee addee dama la bëgg xamal na man foo ma fu ma mës a nekk man Omaro def naa fa dara waaw bañ ñu jàpp ni. Eh, damay xeex wala damay damay defante wala damay naqaral ay nit waral ma jëfe ni ma jëfee ñu bari noonu lañ ko gisee mooy daaw nekkoo fi woon ren ñëw nga mm. est-ce que bëggoo woon eh, ña nga jógee ne yokkute am na déedéet xam nga lu waral mënul doon defante mënul mm. doon eh, jëflante ci mer yi xuloo mooy man dama defantewul la kenn ku yàlla jiital nga ne ca kanam doone di gees sa ginnaaw te man xam naa ne yàlla fayul na ma xam naa ne yàlla attal na ma xam naa ne yàlla jiital na ma comme man li def des sama dund xalaatatuma sama àdduna di gestu di xool nit maa nga ci kanam ndax man loolu leer na ma dama la ne li ma jëf kër waali ren teraangaa yokk wërsëg yokk waral jëf ji demee nii mu demee tur yokk bayra yokk succès yokk ba pare ki ma ko jëfal mooy Sénégal waral mu jur coow lii mu jur waaye dama la ne daaw ci tabaski bi fam ma fekkoon samay L200 bu ñu yàpp juróomi xar def ci juróomi saako soble def ci juróomi saaki pompiteer dem na ca kër foykat ba ma nekkoon te loolu rama sumaare ak ki ñuy wax tubarkàlla macha allah xadi caam ñooy samay seede ndax bi ñuy wàccee teraanga ji ñu ngi taxaw. léegi teraanga ji lu tax nga tudde ko addiya te addiya d'habitude dañ koo xamoon ci sa euh, taalibe bu koy jox sëriñ waaw lu ma tuddee ko addiya mooy saayir taxul ma joxe ko hmm. la ma joxe woon daaw saayir tax ma joxe ko la ma joxe woon daaw dama ko joxe ndax kóllëre la ma joxe woon daaw dama ko joxe ñox cofeel dama ko joxe ndax ànd dama ko joxe ndax loolu laa xam man man ku ma mës a àndal sama loxo dem na ci yow bàyyuma DG yi ma ministre yi ma maire yeeg chef de ku mën a doon yàlla boole ma yow ci kóllëre ba ci sëriñ si sama loxo dugg na ci yow parce que loolu laa xam man loolu lañ ma yore mooy loxoy kajoor day weesaloo te timbax rimbax mën nga maa ëpp wërsëg mën nga maa ëpp at mën nga maa ëpp tur waaye doo ma ëpp moo war a seeg sa loxo ngi ñëw ci man sama loxo lay dem ci yow même boo ñëwulul sa loxo ci man sax man dinaa indi sama loxo ci yow parce que loolu laa xam li war a ma tuddee ko addiyee nag mooy dafa am baatin bu ci laxasu te ci biir baatin boobu balaa ma ci détaillé dama lay bàyyi nga dugg ci deuxième question bi parce que deuxième question bi day ànd ak tontu baatin bi